ca mbokk yi Bamba cham sa café gi bu ñëwee ci man dina ma neex ma koy boole di ko reporter làmb su ngeen mënul ma lamb sama poste jënd ndax wolof nee na ku ñaan ku lan ku ñaan ñak bo jëndé am la guerre la dëgër guerre sita way jambar production jambar fexé nañ ba doon ay jambar léegi wuyoo nañ seen tur nag. waaw bu ngeen nekkee mbooloo. waaw nekk ci làmb ñoo doon ay amateur. di seetaan. di di di bokk xalaat. di diisoo ay xalaat. bu ngeen demee ba tuddee seen sculpture. jàmbaar ah. production. Ah. dugg ci làmb. mais man li ma ci gën a neex mooy. damay bàyyiloo xel gaa yi. nañu bàyyi jàmbaar yu ci bëri mu koy jël ci làmb jooju. wala nga tàggoo maa la wax lii. ah dama ni man loolu li may wax man mii maa ko moom dama leen a naroon a jël ah, ma bàyyi ko. parce que damaa bëgg euh, jàmbaar site bi nekk ca kaw damaa bëgg mu bokk dal li koy def mooy gis nga gis nga gis nga làmb jooju buñ ci liggéeyee rek jàmbaar ma luñ ko dégg fu sori woykat ba woyoon na ko Pape Diouf waaw nee na garab ba nar a doon penc ëllëg ah, law bi ko gis ndax gore su ko waaw bakaay bakaay bakaay defar moom moo mais mais li ma mooy jili bu nekkee fenn sama xel day dal ndax ndax ndax nangu naa liggéey am na jom lenn rek laa jooy ci moom mais jàmbaar la te nangu naa liggéey. Ah, li nga jooy ci moom ñëpp xam nañ ko. waaw ndeysaan waxuma ne nag am ànd ak jibi waaw jibi dafa baax ndeysaan li ma gën a neex ci moom dafa bëgg sëriñ Babacar si mbaka rek dara maan aram loo maam ku ma caan bu duma benn xar yàlla boppu coor xam nga su waxee tiwaawan sama xel de dem ci ku euh, sama xel day dem nag fële euh, ca ca ca tiwaawan ca kër baa kër kër kër birima yooyu yëpp ci waawal na ñu nekk xam nga su ma rusu woon sama baay ku ma woo ci photo ma daal di koy wuyu maam ah, sëñ Mor moom mu sëriñ Babacar ndeysaan da nga wax sëñ Babacar si rek sama xel ndeysaan sëñ Mor sëñ Babacar si fi ñu tëjee saison maanaam maanaam moom dama koo bëgg te dootuma ko bañ ndax keroog fu ñu tëjee fu ñu saison ubbi balaa gisul nag mais mais tëj saison ba neexoon na lool ubbi bi tamit neex na ndax giraar lañ ko ah, ubbi mais lépp grâce à ndax bu la neexoon bu la neexoon jël ko rek téye ko ni ko man sama nitu bop la koy def mais na nga ko pasaare ah. ñëpp jàpp ci nga ñew ni mi ngi ni bu ma kenn laaj numéro mi ngi ni oh. di diggante ak mom di wax tax xolay nit way momit mu nek ku bax xam nitam moom it. ay ca mbokki ñu ngi noonu jëm ci grand combat bi dox ci diggante Dame Souguer numéro 2 wala Dame Souguer rek doyna waaw numéro 2 lay doon ndax Dame Souguer amon na fi. waaye dox ci diggante Dame Sungeer ak doomu jàmbur mbokki yi Dame Sungeer moo la woon ginnaaw doomu jàmbur nga jàkkaar lool arbitre bi ngi waaj a sifflé waaye siffléegul ndax doomu jàmbur daa am nen bu mu doon toj ñu déglu ñoom ñaar arbitre bi mu ngi leen di laaj lii règlement bi nangul li mu bañ arbitre bi sifflé na mbokk yi tey la mercredi 26 avril 2023 arène nationale journée Ouzin Production il est 20 heures 20 minutes Dame Sungeer moo la féete càmmoñ doomu jàmbur moo la féete ndijoor Dame Sungeer jiital tànk càmmoñ doomu jàmbur jiital tànk càmmoñ ndaysaan Dame Sungeer Rock Énergie waa Rock Énergie ñoo ko indi Ndeysaan moom Dame Suker Ndeysaan Ndeysaan waaye doomu jàmbur écrit jàmm jimboor la nekk moom it waa jimboor yi ñoo ko indi ñu ngi lewaatoo Dame Suker cokkaas na Ndeysaan taggaat na lewaatoo bi doomu jàmbur Dame Suker Ndeysaan entraîneur daam su ngeer bi toog ci siège bi laat la tudd ndaysaan koo koy laat bu rok énergie sama xel dem na ci tàkkusaan ba bëree garga mboosa fa la ca teree cosaan mbapat ba ndaysaan ñu bëri bëri bu ci final ba ñoom ñaar ñii ne da koo may ndax ñoo bokk ikiri koñam la ndaysaan waaye ñu ngi ci combat bi ba tey ndaysaan ci teewaayu jam production mu gàtt mi mu ngi ci stade bi ndaysaan daam su ngeer ndaysaan ak doomu jàmbur waaw réew mi moom boo laalee ñu ne bu laal doomu jàmbur daam su ngeer day leetoo bëgg a dem doomu jàmbur dagg leetoo bi mu bàyyi waaye nag mbokk yi am su ngeer actuellement ci ay jafe-jafe la ndax lamb boo teglee benn defet wala ñaar dóor na daam su ngeer dóor na daw na jëli ko daam su ngeer doomu jàmbur jàppante nañ daam su doomu jàmbur plaqué na ko daan na ko daan na ko oh daam su waat na waay ay waay daam massa ay waay daan na ko ay waay daam massa li metti na six défaites consécutives oh massa daam doomu jàmbur daan na ko jël bu rëy doomu jàmbur daan na ko ndeysaan doomu jàmbur daan na ko ndeysaan doomu jàmbur daan na ko këy daam su nger massa ndeysaan li ko dal metti na ci làmb ci mikaay ba ñëpp toog nañ ndeysaan ñëpp toog na ndeysaan làmba ngi ndeysaan xolal doomu jàmbur bëre na bëre bu rëy daan daam su ngeer jibi foofu dina baax mën naa dem ay ca kon ñu jéggi daw daw daw ñu daw ñu daw ñu daw ñu daw hey mais dafa dugg si affaire yi daf see jàpp ah. barki Seydouna Muhammad dama mën a bëre mu mel ne bis bi am na loo ci mébatoon tey yàlla def na ko waa caaro yi nañ génn jàppale ma barki alxuraanul karim waa Thiarou nañ gën jàppale ma. ah. na mbëri ñëw na mbëri ñëw.